salaamaaleykum mbokku Sénégal tey ma amaat mbégte ñëw jàkkaarloog yéen di leen wax ni campagne bi après deux semaines campagne bi tey lay jeex ñun nag waa PUR xam ngeen ne def nañ campagne bu mucc ayib dem nañ fépp ci Sénégal dajeeg sénégalais yi waxtaan ak ñoom saafonte ak ñoom xam lan mooy seen problème mais surtout ñu andil leen ay solution yu am solo ci ñuy réew mi war a suqalikoo donc ñu bëgg le 24 incha allah ginnaaw suba sénégalais yi yëpp génn massivement ñu voter mais voter aussi pour le meilleur programme mooy le programme nit ak naataange parce que li ci nekk gëm naa ni loolu moom mooy suqali Sénégal li ci nekk mooy jàppale nit li ci nekk mooy defar nit li ci nekk mooy dellu ci ay valeur li ci nekk dellu ci sunu cosaan ak sunu aada li ci nekk mooy andi économie koom-koom boo xam ne ñun ñëpp ñoo koy bokk li ci nekk mooy defaraat gouvernance participative euh, rééquilibrer sunuy institution sàmm suñu constitution sunu loi ak sunu ay règlement taxawu nit ñi defar éducation bi defar njàng mi defar santé bi jàppale béykat yi jàppale nappkat yi jàppale sàmmkat yi jàppale ñi nga xam ne dañuy dund ak laago mooy sunu personne vivant avec handicap jàppale ndaw ñi surtout la jeunesse de notre bi nga xam ne dafa soxla ñu jàppale ko parce que dañu soxla andiwaat espoir ci réew mi jigéenu Sénégal mu bëgg ñu jàppale leen bu baax ci leadership féminin ci autonomisation des femmes jàppale artisans yi jàppale commerçants yi jàppale sunu secteur privé jàppale ñëpp pàcc yëpp ci réew mi ñu war leen jàppale fàttewuma presse bi ak média yi ñooñu dama leen di remercier ndax ñoom ñooñu ànd ak ñun jàppale ñu ci campagne bi liggéey ci liggéey bu mucc ayib ma di leen sant bu baax ñoom waa presse bi di leen gërëm bu baax a baax mbokk yi fi mu toll nii réew mi ci beneen dimension la jëm dimension boobu nag dimanche ñun ñëpp en tant que sénégalais ci lañ ko war a décider ci la ñu war a taxaw tànn ki nga xam ne jàpp nañ ne kii buñ ko joxee réew mi dina ko teg ci yoon bu buñ ko joxee réew mi dina andi justice sociale buñ ko joxee réew mi dina andi jàmm surtout may woote jàmm dina buñ ko joxee réew mi dina taxawu baadoolo yi dina taxawu diine dina taxawu daara yi dina taxawu pàcc yëpp ci réew mi te kooku gëm naa ni Aliou Mamadou Diallo parce que sama parcours parce que sama expérience parce que sama profil ci développement jàpp naa ne je suis le meilleur candidat boo xam ne ñu ko joxee réew mi dina ko tegaat ci yoon andi dëgg taxawal réew mi jàpp ñu andi naataange comme ni ñu ko waxee suñu programme nit ak naataange ñu di leen sant bu baax a baax a baax di leen gërëm donc di jox rendez-vous ñëpp le dimanche pour ñu vote génn voter dans la paix dans la stabilité incha allah yàlla def ñu gagné delloo réew mi ci jàmm asalaamaaleykum